Vous allez comme, de la carte de visite, en passant par le flyer publicitaire ou roll-up. Nous créons votre visuel et l'adaptons pour chaque support. Nous pouvons également créer et agencer votre publicité sur les différents formats de véhicules. Téléphone 77 360 63 79 77 728 75 65. kër Paa Jaxate tur di kure ni xul da nga cee bokkul maa nga bëgg a bokk kenn bola wala sa fii di xasan fan fii fan fan sa fii di xasan kër ñëppay jaxasoo amul góor amul jigéen ñëppay jaxasoo kenn jaxase dafay jaxasoo

fani dama damaa seetlu benn affaire muy comme ça ni ma doon wooye ay bébé affaire yooyu yëggatuma ko tamit xam nga loolu mi may Wara lol. a lool. chéri yow xam nga ne man yoruma xaalis dërëm yoruma ko amul dërëm bu may topp man ben fukki dërëm cent franc bu ma njëkk yor sama poos jàppal ne crédit la ko jëndee def ko rappel mo wala. mais man amul dara lo xamanteni tay ji ñor yor ko ci di la ko bañ a ndax man yow la am man neena la sama aduna sama dund yow la man tay ji yow bo doon dox bañu arrêté la moy man arrêté nañu wala rek moy arrêté nañu. bébé gis nga li nga wax yëpp dëgg la gis nga Aya lu xaliss bu ko fi tuddu gis nga man bëggee wu mëna ndax xaliss lu mu la bëgg bëgg bu sincère bëgg bu amul fenn gis nga affaire xaalis ay deuxième la teg ko ne gis nga li ngay dund ak man nii rek dafa neex jàmm ji ma may salaam ji ma may loolu moo ëpp xaalis walla bul am benn stress yaakaar ma nga xool ma <laughs> xool ma def ma petit sourire xaalis da ngay dugg jox la lu doy nga jënd crédit ba jëndaaleel ku la neex crédit xanaa loolu neex na eh ngay triste yow. Ah. non mais kon reetaana. non li nga wax léegi. neexuma. lu tax. bébé yow xaalis boobu nga wax ne moom nga may jox ma jëndal ko crédit boy Maodo da nga koy jëlee sama morom jantal meen yi. yow ko lan bàyyi sa bopp fiir yi ngay wax non non non non si du waxu fiir ok zoli ma rek ma expliquer ah, man dama ak sama ngor am sama ngor ba nga xamante ni tey jii la na yoruma mais amul benn jigéen bu ma la jëndee ci kaw suuf nuyu ma xam nga man may yi damay room rek sama benn caamin may ma xaalis dama jàppal si lii ah na bu si meex ah mais mais fii mais bul meex waaye tamit aussi yaay sama xarit. non man heure bu rek. Ah ba gis sa reetaan damay féex man li tax ma bëgg la xam nga maa la da nga doon jigéen ju am personnalité bëgg sa bopp xam yaay kan foo mu mësa fekk si gil bébé est-ce que xam nga ne kan kañ nga ma a akulaat ah alay akulaat lu neex one waaw ay doon sàmm mais booy ñëw ti autoritaire lu tàllalal sa loxo eh tàllalal sa loxo bu ma ko jox yee eh, booy man loxo bii raay ay ween du ma ko du ma ko nuyu. eh booy eh yow laa waxal sa xongaay nga mel ne tamaate bu furi dugal eh eh kookoy lan bu leen expliqué jugal eh, leen nag dinaa la ko xamal boo yorul wéroo say nelaw doyul sa ba ngay sàngo jotul da hmm. ngay xam sa bopp te muy dëgg leer na kër gi nag bu fi ñëwati ndax boo yow sa loxo day doxoon ba pare juboo te dégg naa en plus yow yaay kii dugg ci tataay bi su mag ñi lu tu tu leer taxawal taxawal déet booy bu demee noonu dañ ñoo sonal ci kër gi kër gi amuñu jàmm amuñu salaam yow ñu fi ñëw yëpp yaa ci gën a ndóol benn dërëm yoroo ba pare sonal sa tànk bu ko fi tege fi dayaal ci biti on homme de petit eh foo jëm yow bu eh xaaral kaa su xaaral bàyyi ba mu ñëw bàyyi ba mu ñëw. lii ku ne nii xul dama cee bokkul maa nga bëgg a bokk لا اله الا الله am na lu jaar fii de kaay wala gerte lan la am na lu jaar fii de bu dul muus bi kañ la def muus mu mag jaar na lu jaar taxawal xam nga lu ma la bëgg a xamal. ah fii xam nga ne dara jaaru fi. ku la dara jaaru dara jaaru fi lu fiy jaar. lu fi mën a jaar. lan lii ay karo la. du am bën-bën. léegi bu amee bën-bën kenn mënu fee yéeg. am na lu fi jaar daal. man daal xaw ma am na lu fi jaar xam ma aw ma lu fi jaar hmm. xam nga lu ma bëgg. Ah. buntu néeg bii nga bokk. waaye Aliou yow mën ngaa dëkk ci kër gi fii te buntu néeg yi duñ leen laal. bii de moom doo doo ko laal bii doo ko laal. kon yéen bu leen laal bii. bii duñ mën nañ koo bañ a laal. nañ def écart. nañ def écart ku nekk xam sa bopp. foofu laa bëgg nga yam fa. Aliou nga téye sa bopp ma téye sama bopp. gis nga nag yow boo amul sant naa la fàttali démb. c'est-à-dire. Ah. mo dagan fi ali aramon fi ga nga ne dagan na fi maa nah, ah, la wax loolu yaa nax sa bop ah man koy bukki laa duma ñëwaanu tef ba ñow man la man bukki laa ñàngoor laa gaynde laa gaynde waaw du gayne al an la man ah kaña waaw xam nga kaña bëccëg nañ koy defa noq yet bam de te fofu la jëm ak yow gayne la dama jëm gayne ah gaynde gaynde kon saane nga gaynde laa ah, gaynde duggal sa néeg duggal dama dama boo demee ma dem. booy dugg booy dugg may dugg. yow pire et dur nga ne. fii kenn nga naan fii dañuy dëkk. puti moos